salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen télévision Equivox TV waaye ci seen biir émission Vox Arena ñu dellu si waat rek tey mbokk yi fas yéene leen indil njàngat bu amoon am solo fas yéene taxaw seetlu ci loo xamante ne seetlu doon nañ ko ci wàllum làmb ñu gis mbër yu bëri yi nga xamante ne amoon nañu yaakaar si ñoom ñu daal di fi bàyyi làmb ji daal di voyager. yëpp en tout cas voyagé nañu gisatuñ leen ñenn ñi confirmé nañu nii bàyyi nañu làmb xamuñu lu ko waral wala ñenn ñi déglu nañ leen ñu wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne làmb toll na ko looloo tax ñu daal di voyagé loolu tey mbokk yi moom lañu fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Less coach nekk coach parcelle Mbooloo nekk ci milieu làmb aussi ñu fas yéene cee yaat yaatal ak moom moom ci loolu waaye mbokk yi balaa ñoo départ rek ñu leen di wax rek ñu continuer respecter mesure d'hygiène yi ñu continuer respecter couvre-feu bi continuer respecter li nga xamante ne moom mooy instruction yi ndax yàlla def couvre euh, coronavirus bi daal di fi jóge donc ñuy ñaan yàlla ci barke koor gi balaa moo jeex Covid 19 bi daal di fi jógee salaamaaleykum maam. Euh, maaleykum salaam Cheikh Omar maaleykum salaam di nuyu sama booy bi booy El Hadj. booy El Hadj. di leen siyaare di wax rek. Mm-hmm. mbas mi nekk ci àdduna mm-hmm. lëmb réew yi parce que lëmbewul Sénégal kese lëmb réew yi ñuy ñaan nit ñi am na ñoo xam ne gëmuñu ko am na ñoo xam ne gëmuñu ne am na mais boo déggee chaque jour nga dégg ñu ne nit faatu na ngir mbas mi te am na ay mesures de prévention yoo xam ne moom nga war a jël lu mel ne takk masque raxas say loxo ba set di diwoo gel ah di toog ci kër yi aussi dañ koy def mbas mi mën fay jógee ñu nekkaat ci activité yi. Mm-hmm. waaw surtout li manqué nit ñëpp. mooy ñuy xëy liggéey ñuy xëy demaat ci entreprise yi ñiy xëy delluwaat ci hôpital yi dem liggéey yàlla na yàlla saafara jàngoro ji jàngoro ji dem ci jàmm jàngoro ji dem ci jàmm allahuma amin alors suñu ñu fas yéene waxtaan ak euh, yow ci li nga xamante ne moom mooy voyage yu ñu seetlu ci ndaanaanul mbër yi nga xamante ne voyagé nañu kenn xamul lu ko waral mm-hmm. wala ñenn ñi déglu nañu leen ñu wax ci mm-hmm. ñu lim rek quelques mbër yi nga xamante ne Euh, xam na nañ leen ci làmb bu baax a baax. Mm-hmm. ñu daal di fi bàyyi làmb voyager. Mm-hmm. ku ci mel ni Koña. Mm-hmm. xam ngeen ni Koña bi muy voyager. espoir la woon ci làmb mu nekk koo xamante ne kenn dootu ko fàtte. Euh, ku mel ni Dumbul. nga xamante ne yoof gépp dañoo nekkoon ci ginnaawam moom Dumbul. mu bàyyi fi làmb voyager. ku mel ni super jamono. nga xamante ne moom Modou Lo ñoo départandoo parcelle. mu dëkkoon foofu ca unité 13. booy Naar aussi nekkoon écurie Fass après doon ànd ak Balla Gaye mu nekk koo xamante ne ku ñëpp ràññee woon nañu ci làmb ku bëri woon xorom mais koo xamante ne la tegle woon na ay victoire yu am am solo koo xamante ne ku mel ni Ramda euh, ramdaan nga xamante ne ndaanaan la mu ngi génn ci classe boo xamante ne ay champion rek la ci daje woon fallu Ndiaye promoteur bu mag bi daal di ko organiser mm-hmm. moom it mu bàyyi fi làmb daal di voyager toog gis nañu yàndaa aussi yoonam États-Unis moom it ah moom it mu dem donte ne dana ñëw Sénégal mais géej na bëree lool ba léegi mu ngi États-Unis mm. ku mel ni bàyyi Pël mm. xam nga ko mu nekk ndaanaan boo xamante ne moom it parcelle amoon nañ ci moom yaakaar Djilani mm. Pouy et tant d'autres bu ñu koy lim coach duñ fi jógee mais coach ñooñu noonu ñëpp coach ñu voyagé mm-hmm. coach noo gisee loolu euh, maa ngi nuy mbër yi nga lim yëpp di nuy aussi waa Diaspora bi yëpp du nuyu axlu làmb parce que ci làmb la ñuy wax te it man li may wax dama koy jëmale ci ni ma xamee làmb ak ni ma koy toppee euh, gis nga li waral voyage yi boobu boo xoolee ci mbër yi maanaam ñu mel ne Baye Pal ñoo leen xaw a innové tuuti ci voyage bi parce que buñ déggee ne mbër dem na mbitim réew am fa teraanga yaa ngi dégg di ñëw di investir fii donc ak ñi xam ñi làmb ji mel ak fa làmb ji jëm parce que làmb ji ñaari tànk doon doxe léegi benn tànk lay doxe deel am dégg-dégg nag te di ma déglu waaye bañ a dagg samay émission yi parce nit ñi may seetaan ñoo tax may sonn ci li may wax bëgg di waxtaan ak askan bi mais du man non damay bañ nga may dagg léegi nag mais mais du man euh, boo xoolee loolu làmb ji dem bay daan daan waaxu euh. léegi tey muy doxee benn tànk nga xam na yaa problème parce que boo xoolee ci jamono ñoom Tyson jamono ñoom nii jamono ñoom Baboy nga xool tey génération génération bi ci topp ñoom Balla Gaye ñoom Tapha Tine Eumeu Sène Modou ni ñu daan amee xaalis nga xool làmb ji fi mu toll nii ak ni muy sooxee nii war a jëm sukuraat. Ah? war a jëm war a jëm. war di taalikut. waaw léegi nag ñu war cee nag révolutionner booy yi parce que léegi mag ñi nga xam ne ñi ngi jël yoonu bitim réew. gaa baax na parce que ñu ciy am sutura ñu ngi ciy am teraanga ñu ngi ciy dimbali seen waajur dangay xool mbër mu nekk fi senegal léeg bu daan entraîné ba pare ngoon gi ci meeru fonde ba ca kanam lay abonné Fondé ma wax lu leer la te làkk mbër yi ma wax lépp. yaa ngi dégg tey nga dem ci tëdd fu nooy di lekk lu nooy yaa ngi dégg di njibbisi boo njibbisee fajal say waajur seen teraanga yaa ngi dégg fajal sa bopp sa teraanga dimbali ñi ngi mën a dimbali. looloo tax ñu yokk gën a dem parce que làmb ji ni mel boo bëree tey nga bëri ren jii balaa ngaa bëriwaat ñaari at xoolal li ma wax ci mbër yëpp. mais coach loolu lan moo ko waral lan moo tax mbër di toog ñaari at du bëree. xam nga làmb ji li koy doxam ak li tax mbër yi gën a gaaw a bëri sponsor ci la bokk bu sponsor ñëwatul làmb ji day metti promoteur génnee xaalis def ko ci taabal ji. ñu koy am ñëpp day am benn benn waaye mooy jóge fële rek yaa ngi dégg ñëw ne maa ngi nii lii kat indaale naa ko ci làmb laa ko bëgg a def. mais coach am na mbër yoo xamante ne bi ñu fiy bàyyi làmb di voyagé. Mm. dañoo nekkoon ci dynamique de victoire yu am am solo. nga xamante ne ñëpp xam ñëpp dañ leen di bëgg chaque année mën nañoo bëri. Mm. te ku mel ni euh, dumbul. Mm. nga xamante ne bu jógee yoof gépp jóg. mais dumbul bi mu fiy jógee di dem. làmb soxla woon na ko dumbul amul problème mu bëree. Cheikh Omar. dumbul dèjà ambiance bi mu daan indi ci làmp hmm. tegale téeméeri caay ak juróom fukk. waaye di la ko randaxul randaxul boo xam ne ñun ñëpp dañu amateur moom moom danaa indi amateur. Hmm. parce que amateur làmb loolu da ko bëgg. yaa ngi dëgg xoola ko ci mel na Ramadane ak fi mu jóge ci tournoi bi. Ramadane ah, xoola tey xale bu mel na Yanda ak ni mu tolloon ak ak ak ak daye bi mu yar. yaa ngi dégg ñoom ñëpp tey ñu màngaan yi yaa ngi dégg dem bitim réew nar a yàqaale génération bu ndaw bu fi nekk. parce que génération bu ndaw ku ci bëre benn combat léeg-léeg nga tase moom ci làmb sax mënul kër su man sama xel mi yëpp ci voyage la nekk. Mhm. ñoom aussi ñoom ñi jot a dem la majeure partie ci buta fuuree li ñuy liggéey. li buta fuuree. waaw kay bàyyi waaw kay del del jàng ci man xam nga maanaam boo déggee maanaam la buta fuuree xam nga maanaam boo amee expérience tuuti xaw a génn tuuti. Mhm. am na yoo xam du la jaaxal maanaam am na ñoo xam ne ci restaurant yi la ñuy liggéey. yaa ngi dégg am na ñoo xam ne ci discothèque yi la ñuy liggéey. Hmm. ils sont bien habillés sol costume avec leur gros bras xam nga bu la habillé da ngay jantal yaa ngi dégg am na ñoo xam ne ci cafétéria yi buntu cafétéria yi la ñuy taxaw pour mettre de l'ordre yaa ngi dégg loolu lépp tey boo ko xoolee yaa ngi dégg nit au moins ci benn guddi nga am ci 100 euros yaa ngi dégg nga nga daan toog fi Sénégal doo am sax lu ma 10 000 francs yaa ngi dégg loolu mooy gën a yokk ñu voyage hmm. yi toog fa hmm. yaa ngi dañ leen di ñaanal nag aussi fañ dem toog fa yàlla defal leen fa jàmm defal jàmm Sénégal yaa ngi dégg parce que déjà ay star lañ star bi ni ñu ko bindewoon noonu ak ni ñu ko jàppaloon moo tax li ñuy am ci culture bi muy culture de la lutte yàlla may ni possibilité ba ñuy voyager noonu hmm. mais xoolal boo xoolee ku mel ne Ramdan dynamique bi mu fi nekkee bu bu fi toogoon tey ba ci kanam pour am combat da koy jafe ndax la benn boo xoolee tournoi bi mu jógee ak la mu fa def hmm. pour mu bëriwaat dina ko jafe loolu waaw ndax lan mu jógee ci tournoi boo xamante ne moo daan ñetti ñooñu. waaw ba pare ñi mu daan daf koy tëbal benn palier. tey Ramdan mën na dugg ci euh, ci cercle boo xamante ne ma macha allah. waaw mooy li ma la wax nee naa la mbër mu da nga toog deux ans doogu bëri bëgg nga am dégg-dégg. waaw lu tax loolu ko xoolal ca jamonoy Gris Bordeaux Bombardier ba léegi mbër mu bëri da nga toog deux ans yu bëri ko téere li ma la wax man li ma la wax làmb laa lay wax waxuma la pour wax nii nit ñi non dama lay wax pour li nga mooy réalité làmb boo xoolee Moussa Ndoye ba mu avant muy bëre Garga ñaata at la toog du mën a di li ma duñ jeex loolu tax ma ne la làmb ji fi ñu jëm nii ak na daal làmb daal mel bu njëkk c'est différent ba moo tax tey mbër yi di gàddaay di dem di voyager oui déglu naa ku mel ni euh, Mame Balla mm-hmm. Mame Balla ne mm-hmm. moom li mu gëm mooy effectivement coono gi ci làmb mm-hmm. dagg-dagg avance gi ñu lay jox. Mm-hmm. nga xamante ne balaa ngaa bëre amaana sax xaalis jeex na. Mm-hmm. leb yi ngay leb. Mm-hmm. coono yi nga ciy daj. famille bi foog ne yor nga lu ne. alors que yaa ngi ci ay problème ku dégg ni fay nañ la xaalis. ku nekk daw ñëw. nee na moom bokk na si li tax mu voyage mais coach nee na moom bu amaatee combat mën na bàyyi foofu liggéey ñoo bëre. mais en général mbir yi nga xamante ne. bàyyi nañu làmb voyager. Mhm. dellu si waat est-ce que dana imposer bi dana dana yomb. non dañuy manqué repéru làmb. Hmm. parce que munoo toog cinq ans à l'étranger bu hiver bi ñëwee da ngay xëy ndékki tëdd añ tëdd. mais danañu entraîner ci saal dama déglu ma nag hiver dama ne la da nga tal leneen lu may dem entraîner ci saal sàmm sa yaram bi nuggal sa yaram bi taal surface muy takk yaa ngi dégg da nga da nga da tëdd. da nga añ tëdd danga nga lekk tëdd bu yàgg looy am. lex yi rëy. Hmm. ndombal baa di rëy biir yi rëy xottitaat yi rëy. donc loolu mënoo ñëw nga am repère. yaa ngi dégg ci làmb yaa ngi dégg bëgg nag pendant cinq ans nga ñëw ne damay reñe ci làmb ji fekk ñoo xam ne fii ñu ngi ci din yi yaa ngi dégg ñu ngi ci saalu musculation yi fii ñu ngi contact contact bu intense ndax chaleur bi am fii bu hiver bi jot du am fële. seddaay bi am à l'étranger amul fii Sénégal. coach dama leen limal ñaar ñoo xamante ne bi ñu dellu see dañoo imposé ci làmb. wax moom Baboy voyagé na. Mhm. Baboy. waxal rek. Baboy voyagé na. Mhm. ñibbi si imposé làmb ji. waaw mhm. ah. Moustapha Guèye. na. mu ñëw imposé làmb ji. ñoo ñu noonu coach. yeggoo ci jamono jii de. waaw mais dama lay jox exemple. Ah, booy pourquoi bu fekkee ñoo ñoo ko réussir. ñoo ñoo ko réussir Moustapha Guèye bi muy ñibbi si jóge France. indi woon na masse comme ni nga ko doon waxee mais fii la ko dindee mais boo amee préparateur bu mel ni Mame Less waaj dellu si xam nga yow ndaanaan nga waaja a dellu si jox la boppam dénk la boppam li mu bëgg di ko ci def fekk na li mu bëggoon réglé na ko ci famille am. cest jamono ji njëkk ji. Hmm. di ngay wax nii ak jamono ji nekk nii. la nit ñi daan dundee bu njëkk ak li nit ñuy dundee léegi bokkuñu. mais coach loolu yàggul nag. baaboo yi mu dellu see yàgg na yàgg na. ndax lan lu dégg nga li ma la. jamono ji mel nii ni ñu nekk nii ak jamono ji nekk ci différent alimentation bu bokkul yaa ngi dégg ni nit ñi daan doxee bu njëkk ak nit ñi joxe actuellement bokkuñu ña ñoom père Tafa Gueye ñoom per Balla Gueye daan maintenir seen seen seen corpulence yaram Balla Gueye bëri na bàyyi bëri musoo ko gis mu am benn yenn xeetu volume yi yaa ngi dégg parce que moom xam na ni mu doon surveillé mais boo yi léegi ku ci toog hiver fekk la États-Unis boo ñëwee ay ndombay baat ngay indi ay lex yi rëy biir bu rëy. yaa ngi dégg nañ waxante dëgg lekk yi aussi bokkuñu te hiver bi li ngay tëdd moo ëpp li ngay jóg di entraîné ci. mais coach da ngay manqué énergie. may ma tuuti rek da ngay manqué énergie di nga manqué repéru làmb contact doo ko fa am. amul ay din États-Unis boo ne ma am na ay din dangay jaaxal sa bopp ci hiver bi kan moo fay dem din moo tax ma ne la buukul bul bul bul jaawale yàlla ak yàlla yi yaa ngi dégg li ma la wax ci làmb ji rek moo ci ne. fëgg la fëgg la maa ngi lay nuyu ah. Feugueleu maa ngi lay siyaar bu baax a baax coach gis nañu Feugueleu ak Ness bokk nañu si ñu njëkk mën naa wax ci génération bi voyagé. Mm. ku mel ni Feugueleu mm. mais Feugueleu day voyagé daal def ab diir États-Unis mm. mais day ñëw bëre ci làmb ji. te pourtant li ngay wax def li may wax mooy professionnalisme bu nekk léegi ci àdduna nga xamante xam nga li ngay lekk. bu fekkee da dem États-Unis euh, nga topp effectivement comme ni ñu ko waxee mauvaise bouffe bi. nga xamante ne moo am un peu nag. ci bitim réew ak fii sax am na fi. Mhm. di nga jël masse mais bu fekkee ni sportif au niveau nga ngay dem salle di entraîner. Mhm. di respecter sa régime. Mhm. coach mën ngaa si impose di nga indaale doole bu wóor coach. xam nga. ñi fëgg la rek exemple la xam nga xam nga fëgg la. ci moom ngay wax mu ñuy wax ci moom tuuti rek mën na faa dem di entraîner di fa liggéey mos fa dara dellusiwaat. waaw xam nga loolu d'accord naa mais ñi dem toog. xam nga da ngay am dégg-dégg seex bu ñuy waxtaan deel am dégg-dégg tuuti. da ngay am dangay ngay dese am dégg dama ne la. ki nga xam ne dafa dem pour pour préparer bi. xam nga ne bi nekk ci contrat yow xam nga ne dina ñëw. Hmm. bu fa doon def 6 mois dina ñëw. 6 mois yi mën na faa liggéeyal dara mos fa dara indi ale état bu baax ñëw senegal boo bokkut ak ki dem toog di liggéey ci buuta fuure yi. xam nga léegi li problème mooy. xale bu mel ne Mamballa xale bu mel ne Dumbul xam nga ban 1900 lay ñëw. parce que réalité visa États-Unis dafa am solo mën nga fa def 6 mois parce que 6 mois boobu nit kuy préparé dooñu la may 6 mois boo ko respecté ñëwaat Sénégal amaat combat bëri bu la neexee mën nga faa delluwaat 6 mois mos fa dara liggéey fa dara dellusiwaat Cheikh Omar parce que loolooy réalité visa pour bañ nga fay jaabante di ñëw tout le temps di lay may visa ñu lay may dañ lay may 10 ans comme athlète bi préparé wu nga xam nañ ne lutteur nga dañ lay may 10 ans mais 10 ans yi 6 mois yi dee ko respecté. d' accord alors coach ñi nga xamante ne lan nga leen di wax mbër yi nga xamante ne jàpp nañ ni euh, ñoom danañu dellu siwaat ci làmb bëre ban conseil nga leen di jox lan nga leen di wax ñu koy mainteniraale donte ni ñu comme ñoom bokk nañ ci seen mébét jëmmi jamono ñu dellu si imposé si làmb ji lan nga leen di wax. xam nga ku mel ne fëgg la il est majeur et vacciné. Mhm. yor contrat dem ci contrat am ku muy bëreel. donc kooku bu demee xam na la muy liggéey xam na la ko war même bu doon day liggéey liggéey bu xaw a woyof sax pour mos dara parce que aussi doo dem toog ci nit rek mu yëkk ci teraangaam di la jox te ci 6 mois ya nga fay def nga mën a am liggéey bu woyof booy liggéey te du la yàqal sa ma xale bu ci mel ne Mamba la xale bu ci mel ne Koña xam nga ñooñu balaa ngay mën a waxaat ñoom nga am yaakaar dañ dellu si parce que ñi ci bari dañ lay wax nii rek mën nañ la wax yow ci Instagram wax la ci daa dellu si ñoom danaa dellusi si dinaa si mais ba ñu bàyyee bëri yàgg na. Hmm? maa la ko wax. kon bu kenn bu kenn yaakaarati ci ci ci ci mbër yooyu dellu si. déggoo li ma la bu ñu delloosee see tumuraanke leen si te yàlla bu ñu tumuraanke parce que la ñuy wuti dañuy ñaan yàlla mu jàppandi ci ñoom ñaan yàlla muy xéewal ci ñoom parce que ci lañ mën a dimbali askanu Sénégal bi nekk fii dimbali seen waajur dimbali seen bopp. Hmm. donc nag yàlla jàmm sax ci ñoom yàlla jàmm sax Sénégal ci ñun ñi fi bàyyi. mais liggéey ba leen tax a dem. ñàkk dayoo ci làmb jee tax parce que làmb ji li pare mooy mën nga cee am tur te valeur ba nga ci war a am valeur marchande ba nga ci war a am doo ko ci am loolu mën na laa pousser à la porte du sorte nga dem voyage boo lijjantee sa visa da dem si yoon waxtaan wax dëgg ca la am na ñoo xam ne boo xoolee xaalis bi ci ñeenti mbër rek la yam am ma seen Balla Gaye Modou Lo te li la wax ni bind ko téere ana Tapha ñaata at a ngi nii bëriwul ana Modou Anta bu Thiès bindal li ma la mbër mu ci bëre dana toog deux ans doo ko bëri yaa problème. mais est <laughs> problème boobu noonu problème boobu noonu problème boobu noonu. mooy li ngay bañ. est-ce que problème boobu yëpp du wiiri ba egsi ci seen CNG boobu ngay bañ laal. no c'est parce que bu fekkee ni mbëri bëreewuñu comme ni ñu war a bëree. nga xamante ne ay combat yu yambamaay rek la fi gars yi di tëgg mooy sponsors yi daw nañu d'accord mais gars yi aussi est-ce que solution am na foofu laa lay waxee. Cheikh Omar. ma jeexalee foofu ah. foofu la euh, foofu la CNG CNG. bu nit ñi yaakaar ne man je suis un boo xam damay défendre waa CNG. mais coach c'est CNG nga. non da ngay da ngaa juum. mais coach. défendeur CNG nga. wax wax day am dégg-dégg. waxal. te il faut ngay dégg Cheikh Omar. gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga CNG même buñ ko tasoon naan dañ koy def fédération ka fay toog xawma ko Alioune Sarr mi toog xawma ko làmb ji man damay bëgg rek luy faa lu koy dox nekk ci droit ci ci loo xam ne ci ligne du droit la nekk lu loo xam ne lu jub lay nekk. mais dama ne la dama ne la dama ne la dama ne la. lépp lu fi CNG def da nga ko ko dama ne la waxtaan naa ca yow waxtaan naa ca yow ne la tey bu ma saloon Alioune Sarr bàyyi leen ak làmb ji bàyyi leen ngeen doxal wax naa la ko da nga amul dégg-dégg. te loolu laa lay wax chaque instant ne la man bu doon maay moom nekk conseil am dama naan ko bàyyi làmb ji bàyyi leen ñoom ñu doxal seen doxal. prévu bàyyi làmb noonu la. waaw ñoom bu dañ koy tas def ko fédération wala def ko lu mënti doon. Mhm. yow nga bàyyi nekk ci occupation ba nga liggéey liggéey li nga doon mhm. que lu jóg rek dañ naan tey CNG ko yàq wala lii moo ko yàq lee moo ko yàq mais. aussi mbër yi xam ne mbër yi nga xam ne aussi ñoom dañoo amoon dayo ci làmb am yenn maqaamay ci làmb yaa ngi dégg tey ñu tëb dem voyager luy suuxel làmb ji ci la bokk. xale yi nekk fii ci Sénégal aussi la majeure partie ku ci bëri benn combat sam xel mépp ci ñoom lay nekk. Mhm. parce que mbër mu ne am nga référence. Mhm. ci lay tax ngay bëgg a voyager. maanaam mooy diw kat dem na am na teraanga diw ngi yónnee ay nangam nangam man mi tamit naa jéem a def noonu mais tey bu ñu jàppoon ci làmb ji ñun ñëpp di àndandoo di xàccandoo di dóorandoo yaa ngi dégg. la CNG war a jàpp jàpp ci la promoteur war a jàpp jàpp ci la mbër ma war a jàpp jàpp ci entraîneur bi jàpp ci làmb dox. coach looy tàggatoo. Euh, di leen siyaar di leen nuyu baax di ñaan aussi mbas mi fi nekk euh, di gërëm aussi docteur yi fi nekk di gërëm policier yi ni ñuy fanaanee ci mbedd mi metti na bàyyi sa njaboot toog ci tali bi di di sécuriser dëkk bi. di leen ñaanal tawféex ak jàmm docteur yi aussi di leen ñaanal malade yi ñuy fat yëpp yàlla na leen suñu borom saafara ba ñu wér ci jàmm te it coronavirus bi ngeen bañ a yaakaar ne lu amut la di di toog seen i kër yaa ngi dégg di di di seetaan Equivox TV. jërëjëf mamles jërëjëf mbokk yi comme ni ko Mame Less waxee si la ñuy rebondir di wax nañu gën a respecté mesures d'hygiène yi di ñaan yàlla mbas bi jóge fii ak jàmm mbokk yi euh, Cheikh Omar la woon ànd ak euh, Mame voilà le maire le maire. nuyu ma la ko